da nga da nga commencé woon euh, expliquer sa sa sa silence bi xam naa sa waroo dellu si yàgg Macky Sall da ngeen meroo woon. man nañ mere c'est pas grave sama grand la mën naa ko mere Macky sama ko mere woon. mën naa ko mere. mais loo ko mere. non loolu non man nag Macky Sall dañuy teq di doon tel laa koy waxee Macky Sall sama grand frère. wala moom moo la mere. moo xam man gaw mere Macky Sall kon kon kon fooyee na boppam Macky Sall may rakkab mu yilif ma sëñ ma yónni sëñ ma dóor sëñ maa corrigé. ma topp ci ginnaaw ñëpp xam ne dama ko jox sama bopp muy sama mag mu meree ma bu meree woon Aliou Sall bu meree woon Amadou Sall nu muy def. doo leen benn. quelle la différence. yàq Amadou Sall doo leen non même bu dee doom rakam la. yéen ñaar politique moo leen. boole non non politique mais non man. bokk leen sax amuñu relation ma sax non non amuñu relation sama mag la amuñu mais yow mii. man ci politique gëmum ak Sall. xaw ma ndax moom mere na la de waaye yow mere woon nga ko ba téye sa bopp défendre too ko. waaw mais non laaj nga ma tot naaw nga bëgg a indi. non non non yow da nga commencé naan man troisième mandat bi moo. non Macky Sall. lu troisième mandat bi dama la. yow sa jëkkër da ngeen di xuloo sama jabar damay xuloo ak moom man sama doom damay xuloo ak moom maam ak Sall damay xuloo c'est normal loolu du lu garab loolu du est-ce que débat la mën naa mere Macky Sall mais nag du ci tere la lu ma neexee mën na naax leen tey. Macky Sall dañu egg foo xam ne maa li ma neex li ma naq du ma wax ci mais laa leen daal naa wax leen ma effectivement am nañu ne ci biir gouvernement bi ñoo xam ne dañu maa xeex. <laughs> waxal wax ji. non c'est la vérité loolu moom dëgg la am na. dañ laa xeex c'est-à-dire waaw ils ont fait des inf des informations des bulletins de renseignement ils ont écrit dem nañu ba ne biir ma Ndiaye koy saaga mi ngi fekk toog teeram di ko saaga am na ñu ñu wax ma ko moom man naa saaga Macky Sall man yow bu la ko yow sa diggante yàlla mooy mën honnêtement su dee sax biir ne Birima Ndiaye ma ngay saaga Macky Sall di ko gëm. en politique tout est possible. non du politique maa ngi Macky Sall justement <laughs> non du politique Macky Sall suma grand la muy xanaa nag lu nit di wax fu ma musa laaj dama ne Macky Sall sama mag la musuma varié ci moo boobu man musuma dugg yaa ngi naan léegi dama jege APR siège APR musuma fa dugg xam nga loolu. man samay tànk toujours dugg pied siège APR man Aminata Mbengue Ndiaye ma de je rends hommage ma sœur Aminata Mbengue Ndiaye mooy sama responsable tey moom laa ànd moom laa